mais yàlla def ubbi na tey a def teew. waa di sant yàlla rek xam nga ñun moom ay ay ay jeunes sportifs lañu comme niñ koy waxee maa ngi lay nuyu nag di nuyu waa Joal yëpp. di nuyu waa kër Robert Ndiaye tey ñoo ma dalal ñoom góor gi Senghor xam nga ñoom Mbagnick Ablaye Ndiaye mu ngi ànd ak man kon Joal man dama fi am lu rey quoi. waaw di sant yàlla nag xam nga. di nuyu di nuyu aussi Pape Thiel non depuis le matin maa ngi fi quoi mais sant yàlla teral nañu moo teeru nañ moo xam te li laa xam ci ñoom sama dëkk la yàgg naa fiy ñëw kon maa ngi sant dem naa ba ci père Robert nuyu ko xam nga di ko ñaanal mu wér quoi di ñaan nag xam nga lamb ji ubbi na yal nañ ko ubbi ci jàmm bismillahi rahmaani rahim tëje ko alhamdulilahi rabil alamin champion yi amul combat am combat di ñaan yàlla sama combat yàlla may ma ndam parce que ci contrat la tey contre booy Niang tey moo ma indi fii pour remplir sama contrat loolu la waay préparation waaw xam nga pare yaakaar naa daje nañu trois fois saa boo ñu gisee ak bu ñu gisoon du doon benn kon sant yàlla ñu ngi ci waaj taay yi quoi. bay waajal bés bu toll nii bool bool yëpp nekk sekki daaw 100 loolu la def waaw yàgg nañu waaj xam nga ku waaj bu bëre roi des arènes amatul combat bu la jaaxal man Tapha Tine amul benn combat bu mu mën a déstabiliser suma life combat bu ñëw rek dama koy seere préparé ko ni ma ko a préparé ak ñi ma koy di nuyu di leen sant di leen gërëm ñoom ñëpp di leen wax ne Tapha Tine am combat nañu jàpp xam nga may leen roi bi nu mu gën a gaawee loolu mooy objectif bi amul leneen way waaw Thialis moom xam nga dañ koy nuyu teg na ma yàlla may ma ndam mu ñëw tegaat ma kon du ma ko def lu di ko nuyu di ko sargal di xam ne jig na ma sant yàlla alhamdulilah. ñu gis yéen ñaar da nga dugg si rek léegi rek daje ci géew coow lu bari mu mel ni combat bi coow li commencé ñaari borom ginnaaw ñoo daje noonu rek la mënoon demee quoi du leneen. ñu ngi la gis mbër yaa ngi ñaq. waaw sant yàlla rek xam nga sant yàlla ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey quoi. am na lu ma la waxoon ca ca ca poto fondé ba yaa ngi koy fàttaliku. waaw lan laa la tontu ma ne dugub dafa bëri ay façon nga ne ma lan. waaw dafa bëri façon dinaa la ci leeral lu bëri. ñëwal ma ci am na am na tàkkin la borom tàkkirib a Kandé loolu dafa leer voilà mu ngokk waaw di wax comme adversaire yi aw dara lu ma koy wax géew bi moo ñu boole après léegi géew bi jiyee ko quoi mais euh, dañu gis sa mbokk yi natu combat non man combat bu ma am dama koy respecté ba lu ma yàlla may ma xam ne loolu la man damay pare combat comme ni muy pare combat yëpp quoi lu ma yàlla may nag ma xam ne lii la ma yàlla set alhamdulilahi rabil alamin ma sant ko yàlla ko. non xam naa xam na ma du problème loolu moom anyway ko loolu moom waaw détail la. lan nga xam ci comme ni mu ma xame rek am combat ma koy seetaan ma am ma may seetaan. yaa ngi seetaan ay non mënul ñàkk bu am ko étudier xam lan la ay point ba la ma. war a seet waaw bu bëri lool. waaw tax mu baax te neex nag. voilà mu bokk. non loolu mooy baax. baax bi loolu mooy baax baax bi loolu mooy baax baax bi dëkk gi mu dégg Pikine loolu mooy baax baax bi ma nar koo fekk foofu incha allah mooy li ma la tey amul benn lamb bu nekk production ci man ku bëre ba bëre roi des arènes non wax dëgg yàlla war a toog tiit ci lamb dara quoi ngoog jërëjëf. waaw. waaw di leen jox rendez-vous bés bi rek di wax ne waaw Pape Thialis waaw nañu jox date bu fixe rek boo xam ne nii vingt cinq juillet la wax ñu ngi koy ñaan bu mu toxu bu mu rendu na doon bees boobu rek incha allahu rabi. mbër bu bi ci kaw non boo xoolee préparation yi day yàgg chaque jour ñu ngi entraîné xam nga te ku ne xam na ne préparé combat détails yi ci nekk quoi loolu la mais lépp dañ koy sant yàlla xam ne dëkk bi moo tollu foofu monde bi moo tollu foofu di ñaan Covid bi yàlla na fi jógee. waa di woo si yëpp di sant aussi ñi ma àndal tey ñi ma àndal tey maa ngi leen di sant ndax xam ne ñaari oto lañ jógee Dakar xam nga su may frère lañu su may grand frère ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ah. di woo ñëpp di sant waa Soar aussi di woo kulu séeréer ñu ñëw la ma ci lam ji yàlla may ma ndam incha allahu rabi. Ah. jaajëf champion